na xam wàccuñu suñu ànd mais dañu ànd ak jamono terewul ñu xool suñu gannaaw bi ndax li fi nekkoon moom moo ñu permettre démb moo tax tey am te te tey dañu mën a xool pour mën a pour futur bi ñu mën ko defar mais dañu nekk ay xale ànd ak jamono war a teg ci temps dëgg neexul dañu war a teg ci temps defar ba mu baax mais nag terewul de déraciné wu ñu de dañuy ñun ba léegi ñu ngi ci source bi. du question de persister wala dara parce que dañoo basé suñu valeur suñu suñuy ak suñuy tradition. parce que ñun en tant qu'africain rawatina ñun sénégalais yi dañoo gëm aada ak cosaan gëm lu fi maam yi bàyyi parce que ñun maam rek moo ñu lépp lu ñu am suba ba ngoon suñuy maam ñoo ñu ko may. boo seetloo xale yi nag euh, li ñu nekkee nii du dara dañoo jéggaani te jéggaani boobu ñu jéggaani mooy dindil ay problème yu bari bari bari fii ci suñu biir réew mi tey jii boo seetloo xale jigéen ñi mu leen neex la ñuy solo.

nga jël li nga xamante ne mooy positif mais bul jël li nga xam ne moo moo nekk sens négatif ba nar a lor sa bopp yow ki ngay imité xool ko moom nga xool sa bopp yéen ñaar yow côté ngaañ-ngaañ bi ci yow la ëppee que moom tey boo demee bi boo demee xoolal promotion canapé yi nga xamante ne loolu ni moom nga xale jigéen nga xam ne ñoo woowee seen bopp la génération branchée ñun ñoo branché ñun ñoo nekk au top ñu mën gën a santal <coughs> benn changement de ndaxte problème amoon na seulement avant dafa dul woon siiw gars yi dañ ko defoon ci nëpp nëppal ak ci laaxatu amoon na de fii lu fi am lu ne jamono ci amoon na avant nit ñi ñoom ñoo xamul woon nan lañ koy classé mais lépp amoon na fi sax na. waaw loolu dëgg la il faut ñu ñu xool segg mbir yi mbir yi il faut ñu segg ko parce que man damay wax ne y a des pains sur la planche il faut ñu segg affaire yi xool ko xoolaat ko parce que nit ki kenn ko la doon dox sa ndaw mais pour gaañ sa bopp dox sa ndaw ak gaañ sa bopp te diamétralement opposé. mais afa am yenn yoo xamante ni lu na doomu jullit man ci jullit yi sax laay gën a inspiré parce que boo gisee ñoom cosaan ak aada ñi nga xamante ne ñoo koy gën di dund comme jullit yi man ñoom laay gën a euh, euh, joxoñ tey jii seen i doom dañoo war a sol accoutrement boo xamante ne dafa descend mais nekk xale nekk ndaw mais mën nga sol sa taille maam petit taille maam léegi mu ngi xew amatu mais taille maam bi baax def sa musóor tagal yaa

c'est pour juste nous tromper nous ay nous